بن وادام سنيوتي حسن البصري رحمه الله سبحان الله منكو امام حسن ين ين وحنان ان لكل معصيه عقابا موي كاني بكار بني دف يال داكو تي مبال منكو اني عصيت الله كثيرا ولم يعاقبني منكو من موينا يال البري واي يال مبغلوما منكو اها كاي بل من اها كاي mu ne yàlla mbugal na la waaye nag balla tadri mu ne ko ah ci naka mu ne yàlla mbugal na la mbugal bu gën a tar nee na mbugal ginnaaw mooy yàlla ñaar la mooy boo xamante ni bu apparent la ak bu caché boo xam ne bu feeñ ak bu nëbb bu feeñ bi nag moo gën a tuuti daanaka mooy boo xam laal na sa yaram walla mu ngoog xëy na yaa ngi koy gis waaye nee na mu ndax borom bi subhanahu wa taala xañu la mooy julli waxtu moo ndax borom bi subhanahu wa taala xañu la jàng alxuraan ba pare sentir nii mooy que ni yaa ngi jàng alxuraan mooy nga daal di koy dund am looy sentir mu ne ko ah kay ndax borom subhanahu wa taala xañu la mooy nga koy def azkar journée day romb te doo ci tudd yàlla doo ci jéggalu mu ne ko ah mu ne loolu mbugal rawu ko mu ne ndax yàlla xañu la mooy wéet ndeysaan jog guddi julli di ko ñaan di jooy di ñaan borom subhanahu wa ndax mu musal la mbugal yowmal qiyaam mu ne ko ah kay mu ne ndax àdduna gënu la gënuloo préoccupé ci àddina ba fàtte bés penc mu ne ko ah kay mu ne ndax jaamu yàlla nekkul lu diis ci yow mooy yàlla yow mu ne ah kay mu ne mbugal bii moo raw sa xol la yàlla fatt yàlla nañ ci yàlla musal kon nañu tuub dellu ci yàlla mboobu